boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. C'est le M5, le x le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne pouvez imaginer puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils ils sont étanches dans l'eau, tu jamais vu. Les appareils Crosscall en dehors du bureau, pendant votre et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer votre quotidien. yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie général ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan wa waa Fass Mbao waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre. bokk yi gannaaw bu nu sant sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi fàttalante nu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah saa bu nu fi bàyyi ko mu dinu woo yàlla nañu fekk ñu doon ay dëgg-dëgg jullit jullit bu nekk nag war naa xam ne su ko xamut mu tàndale ne ëllëg a ngi ñëw te jege na lool ñetti jaaruwaay yi nit am ñaar weesu na mu des benn jaaruwaay yim am mooy mu ñëwagul amagut juddoogut ñaareel ba mooy bu juddoo lu mu fi yàgg-yàgg am na beneen bu mu dese boo xam ne ca la lépp di leere kon jullit bu nekk war nay jëf tey baal xel ëllëg bu dee baal xel ëllëg mu xam ne bu fi nekkatut bañ di ko waxtaane faw mu bàyyi fi jeexit jeexit ja nag benn mu nekk lu am njariñ loo xam ne doon na ca jariñu di ca jariñe bu fi jógee njariñ lay wéy nit ñi di ko jariñoo jaami yàlla yi di ko jariñoo waaye mën na fee bàyyi jeexit yoo xam ne it ba mu fi dund njariñ njariñ la nit ñaa ko doon gis waaye moom gisu ca woon njariñ rawatina nag mu bàyyi ko fu muy dem kon la sëñ Abdou Lahad waxoon ne lu amul njariñ fa mu jógee du jariñ dara fa mu jëm da cay feeñ sunu boroom nag moo nu ko wax ne lii nu fi nekk tey dara du ca raw ma nga mu bind foo xam ne lu mu fa bind bu tuub bu ko fa tuub fekkut dutu far te ca lañ koy àtt ëllëg inna nahnu nuxyi lmawta wa naktubu ma qaddamu wa asaarahum wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin kon boog loo xam ne ëllëg ca lañuy ñuy àtte boroom yóbbu ko fa mu bëggoon a dem ba taxoon koy kër kër yi wala mu yóbbu ko feneen te fekk ñàkk xamoo ak ñàkk xam waraloon na ko walla ak nuur ca lam doon def loolu kuy dund xam ko war naa xool fa muy teg tànkam bu baax a baax a baax xam ne lépp ab natt lay doon ëllëg bokk na nag ci jeexee di fi nit di bàyyi bàyyi boo ko déggee mooy ko xam ne nekkatu fi mu amal ko njariñ lool foofee mooy mu tegoon tànkam foo xam ne fii ku ca teg tànkam gannaawam lam am dana ko fekk foofee te du yàq ca ka ca teg tànkam dara lam cay amee yontu bi moo ko wax nee na ku fi teg tànkam fa mu ko war a teg ba aw nit roy ko ca su demee ba nekkatu fi it feeg nit ñaa ngi cay jaar mu de ca am lam ca doon am te du yàq dara ca la ca ña ca teg seen tànk di am waaye nag ku fi samp leneen it teg ca tànkamit te melut na mu war a mel it buñ ko ca royee it ëllëg ki si biir bàkkaar bu ca waay di am wàllam da ko fay fekk te du wàññi ca bàkkaaram ña ko doon def dara yàlla nu ca la musal bokk na ci jeexeet yi fi nit di bàyyi ñu di ko waxtaane tam am njariñ tañ di ko jariñoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd na ci yoo xam ne kenn ku nekk tolloo na ci ak benn ci suñ jamono waxi yont bi du xewi mukk nee na nit ki bu fi bàyyi ko sémb yu mu sémboon ci loxoom ci am xelam ci xalaatam day dog lu mu tegoon loxo mi des koy teg teg ca yeneen loxo ba mu des xam-xam bu mu jàngoon ba am ko doon ko jàngale di ko yaatal walla boog walla ja ak la bu amut bii am bee njaboot goo xam ne bàyyi na leen fi tegoon na leen fa mu leen war a teg it la ñuy def mu jaar yoon lañ cay am wàllam da ko fay fekk ab liggéeyam jeexagut walla boog mu tabax jàkka li feeg ña ngi cay jaamu yàlla ñay jaamu yàlla dañ cay am lañ cay am moom it ma ko fa tabaxoon mu cee am lañ cay am wala boog mu def néegu gan boo xam ne dane woon li feeg ganang fii dal bu ko kenn boole ci alalam foofa it li feeg nit ngi jaaxle di fa lijjanti koo donte nekkatu fi jeexite loolu daf ko fay fekk waaye nag ku bënub teen noona waaye bu ñu demee ba teen nañ cay ame ndox yeex ku ko man ba gas forage li fekk nit ñaa ngi cay naan woom ca doon am ba muy dund su fi nekk tuuti da koy fekk fam nekk walla boog mu ne woon daal moom ci biir daamar ji muy defee transport wata ba biis ba bàyyi na ca toogu boo xam ne ku ca toog du fay def ko sarax it su fekkee jóge na fa li feeg bis baa ngay dem ñam fi bàyyi def lam doon def it lam ci doon am da koy fekk fa mu nekk kon boog ginnaaw faw ñuy waxtaanee ginnaaw ginnaaw nit ki nit ki war naa sagal bu baax a baax a baax ñu ñam fiy bàyyi ba bu ñuy waxtaan ci moom saa bu ñu sottalee ñu xam ne li ñu doon wax lépp dëgg la ñëpp a ko xam mu dese ko nag payug suñu borom gi nga xam ne jéego bu ca waay dox mu di ko fa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa teg ci ne ku jëmbat garab. rawati nag tool boo xam ne lépp ay garab la muy meññi euh, léeg-léeg nit xiif dugg ca biir jariñu dem léeg-léeg picc yi naaw dal ca jël ci seen wërsëg léeg-léeg ba yi may taxawaalu nga xam ne nekkuñ ci loxo yi kenn ku dul yàlla dañ leen a mbërgal ñoom it luñ ne ci coppetit du neen ca kaka ko fa defoon waaye buñ ko tuddee tudd gas teen gas forage tabax jàkka walla néegu gan day mel ne kon ku amagut dara dara dara dara yu man ci yooyu dañ koy xañ la kee war a am déedéet kenn ku nekk am na fu mu toll foo xam ne fa mu toll mën na fay def fa kattanam toll am na ñoo xam ne ci nit ñi yàlla dogal na ñëw nañ fi ba dem waaye tabaxuñ jàkka gasuñu teen gasuñu forage amuñ woon kër gu seen waa kër mën a dëkk sax bay am fu ñuy dalal gan waaye ca seen xam-xam bañ jàngoon jàngal nañ ca aw nit wala ñu waar ca aw nit ba aw nit doxe ca dugg ci lislaam bokk ci li mu jullit loola it lu koo koy def ci lu baax ginnaaw ci xam nga ci moom la jaare toq nga ci moom la jaare wallam da ko fay fekk kon kenn ku nekk ak fa mu toll ci lu mu fi mën a bàyyee lu baax lu ñu koy fàttaliku ëllëg tam amal nit ñi njariñ li ma junj ci gas ab teen wala bàyyi fi ay garab yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jëkke moom doy na misaal ci lu nekk doy na delluwaay ci lu nekk doy na référence ci lu nekk ab kàngama ngi nii boo xam ne ab yahud la woon bari alal lool am barke lool alal ak barke nag du benn barke daana doon ak njaboot bu jëkk alal di alal jiñ xam ak jiñ xamut waaye kookee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madina daf doon rongalaasu ci ay jataayam ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy ko la muy wax doy ko jikkoom doy ko mu ñëw dugg ci lislaam keroog ba xareb Uhud taxawee dafa ñëw wax ci kanam ñépp ne juróom-ñaari tool yii mu am fii ci dëkk bii moom waxut yam am feneen waaye yim fi am bu yàlla dogalee mu dem ci xare bi des fa jox ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiya ndekkete loolu la yàlla namm ba noppi ba mu fa desee ànd na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def juróom-ñaari tool yooyee dénk ko kenn abalewu ko lu luyewu ko jéemu ko exploité tam exploité ni ñu koy wax ci suñu jamono mooy liggéey rek liggéey ca muy muy muy jur waaye anam ko def daf koo def li ñuy wax waqf daf ne tool baa nga ne waqf mooy loo xam ne ki ko def ci alal ji sañatu ko jaay bu faatoo ñam fa bàyyi duñ ko doon ci moom du ko luye duutu ko luye duutu ko able waaye day doon loo xam ne ñëpp la fa nekkal ku dem a dem ba am yitte daal ca lay ñor ca tool ba mën naa ànd ak waa këram bu dee meññeet la mu wat moog waa këram ku nekk jariñu ñu bàyyi fa la ca des ña ca des la sëñ ba waxoon kam bokkaloon ne ko li ci kaw ñi fi ne la ca suuf ñi fi nekkut kon yonent bi moo jëkk joxe misaal ci tool boo xam ne ma ngay meññ mu ne déedéet duma ko def lenn lu dul jox na delloowaat na ko ñépp kon misaal nga noonu moo xam ne ku ne war na caa xool boppam waaye Seydina Ousmane it ba ñu bëggee bundu jullit yi ci teen boobu ma tudd léegi ci teen ci naan ndox daa dem waxaaleeg borom teen ba ñu bari naan ndax yàlla bu ko Ousmane jëndee mu gën a yomb ci nun ndax mètre cube bañ daan fay ci misaal ci suñu waxinu jamono waaye Seydina Ousmane ba mu ko jëndee lu mu wax def na def na ko waqfu lillah ku bëgg a root demal root ku ëmbatut ko kër gu mag gu amut goj boo ñëwee ma jox la goj ku root ci tegal fa sa morom waaye seydinaa Omar ibnul Xataab am na suuf su amoon fi barab fu placé lii ay terrain la lii fu ñu def mbayam noor la suuf sa daal ma ngay dund waaye nag ginnaaw dañoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ def mukk te xamul lu mu leen cay wax duñ wax te xamut leen tey wax duñ def mukk te te xamuñu lu mu leen ca wax ñu def ko ca daa ñëw ne ko am naa loo xam ne li ma am lépp mu ci gën a cher bu ñu ko doon jaay gannaaw gëm yàlla akub yonentam yonent bi ne ko lu mu mu ne ko fan yi dama am suuf su yaatu soo xam ne man na mayum noor man na mayum nawet garab ya ca saxa yaay ka néew sax kenn mënut a xayma ñaata lay meñ ci at ma doon laaj nag duma koy def yonent bi sallallahu alayhi wa nag daawut raayalante gannaaw ak kenn loolu ñun ñoo ko xam ñooy dàkk li nit ki bëgg ñu di ko wax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gën rek lay bu la soobee nga téye ko di ko jariñoo ni ñëpp yi def seen suuf yi waaye nag boo ko saraxewoon da lay gën Seydina Omar na bis ni ki tey génn na sama loxo sarax naa ko ñëpp kon boog yooyu doy naa yam ku bëgg na dem jariñu am na ci réew mi ñu ko def ay tool ku soxlaa bay boo demee mu jox la soo noppee delloo ko ba naaj nag guddi na am na ñam fa bàyyi woon ne waaw la bàyyi defoon nañ ko wéyal am na ñu def leneen nag ci jamono ju yàggut ji am na ku sant ja roy na bu baax a baax li gaa yi defoon ca suuf yooyee xëccoo suuf am na mu ne maa moom ñu ne ko moomoo gannaaw dañ ne kenn du fajal boppam mu jaar fa mu war a jaar bañ na yaa moom ndax yaa indi firnde yi wane yaa moom donte suuf si ñëpp suuf sëpp yàllaa ko moom ba ka doon jàng ñëw di lakkante suñu fallu naa ko damaa bëgg nga may ma xaaju suuf altamisu minka an tahabali nisfa lardi suñu fallu dane ko al ardu kulluha lillah maanaam xaaj suuf bi mu bëggoon a wax mooy li ko tàmbalee suratu mariama ba suratu ba ci surati naas waaye ard ji mu tudd nag def ko ne al ardu kulluha lillah waaye téewul am na diggante boo xam ne dañ ne tàmbalee fii ba fee diw mii lañ ko jox ñëpp a maase jox ko ko ndax ñàkk ko jox ñëpp lañ fi nekkal ba mu demee bañ ne ko yaa moom dëgg dëgg yaa nag daf na jël leen gis nga jël leen joojee kër yooyu lu ca waay jaamu yàlla aati te moroon na jàll lu bari te kooku mënu ko woon a jënd wàllam dana ko fa fekk waaye nag lu ca waaye def ci safaan nag moom dong nga koy moom ndax moom suuf suñ jaamoo daf ci doon jaamu yàlla jox ko ay jaamukatu yàlla la ci jublu woon kon boog faaw ñu nettali nit ki ginnaawam te daf kenn ku ne lañ lay nettali yaa ko fi bàyyi woon ay jeexit gannaaw ëllëg ci liñ fi bàyyi lañ ñuy àtte ca lañ ñuy fay yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën a nekk ca la nga xam ne buñ ñu cay fay waxuma la ñun waaye ku ñu ko yéene sax dana ca kiiluwaale inna nahnu nuhyil mawta ëllëg la wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin bind nañ ko ci foo xam ne duutu far xanaa bu def safaan tuub fekk ko fa dindi ko kon boog bàyyi fi alal baax na waaye yàlla na fekk ba muy ba muy dund alal joojee waajaloon na ca jeexit duñ koy fàttalikoo ëllëg tam amal nit ñi njariñ waaye xam-xam ca la bokk lu ñu fàttalikoo nit bari na téere yu ñu fiy jàng di ca xame diine basañ sañ caa àtte woo te am na ci ñoo xam ne sax xamuñu ko ko bind fu mu dëkk bu ca autorom nekk du xam fu mu dëkk waaye kooku lam ci jublu woon mooy bàyyi fi xam-xam rek bu nit ñi jariñoo sëñ bu mag bi bind na ci ab téereem mën naa am ëpp wenn yoon ne kuy jàng xam-xam yent war naa tax nee na loolu du ay waxam mi ngi ko jëlee ci borom xam-xam moom itam ba ca jiitu mu fas yéenee génn moom ci ñàkk xam ñaareel ba mooy su génnee ci ñàkk xam mu jariñ ñi xamagutoon bañ xam ñetteel ba mooy fexe ba bokk ci ñi fi bàyyi xam mooy bind ay téere taalif walla ay lu mu néew néew li ñu tudde ay muxaadaraat waaye nag ñeenteel ba mooy loo xam mu néew mu bari bu dee loo war a jëfe nga jëfe ko su dee loo wuute jafe nga daal di koy bàyyi fa saasa awalu al xuruj min dalaali wa thani nafu xalqi sil jalaali thalisu al ixyaau lil ulumi al amalu bil maalumi yàlla nañu yàlla dimbale suñuy jeexit lépp set wicc bu ñu koy nettali ji ëllëg ña ko fekke woon ñëpp ne ah ñii mu ko waxee dina la ndax benn borom xam-xam nee na moom ni muy tënki xam-xam ba xam li waa ji wax xam-xam la waa wala déet dana ko jëfandikoo ci yaari anam lu mu wax dana ko jéema a wëlbati jëmee ko geneen wet su ma nee wëlbatiku moo xam ne xalaatu waa ji dong la ndax xam-xam du tuxu ñaareel ba mooy su fekkee waa ji li muy wax lu mu xam la mu wax ko ni mu ko xamee woon su ëllëgee suy wax lu mu xamut it dana ko gëm. ndax day xam ne moom moo ko xamul rek waaye waa ji nii mu xame woon la mu doon wax karaw ñii la xamee kii nii la xamee li muy wax tey yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te musul ñu seytaane ki pakkam ndax seytaane mooy waral ku am alal ñu naa ko dencal sa alal ji denc ko nit ñi kenn mu leen a jagal ñoom ñëpp ku leen bëgg a jagal jagati loo fi bàyyil njaboot gi te bari na ku ñu koy wax koo xam ne fekku fa dara moom lu ko fa lu ko fa ak lu ko fa ñoñam bàyyi loon bari na yit nit ñi dañoo amut jom bu wutoon ba tey tane nañ te fekk wut taxut a am yàlla mooy joxe da bokk nag ci ñi nga xam ne boo amee ñi yàlla jox am na ca lu ja bari na ca lu jaar ci say yoxo dem ci loxo yi nit yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril yéen a ko doon laaj na si na TQG Touba Quincaillerie général ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matérielu quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. c'est le M5, le x le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne pouvez imaginer, puisque prouvés aux normes militaires et dotés d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87. Digital Store, améliorez votre quotidien. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo